projet Boumagle, donc projet de 23 milliards donc financé par euh, la banque islamique euh, du Sénégal n'est qu'une exploitation n'est que également projet intercommunal une commune de et ak euh, commune de Palmarin Fakao donc projet bi depuis mangrove bi mu Tani, donc euh, ndox moomu war a daw lu mat quarante cinq kilomètres en serpentin au fur et à mesure muy daw daw nag euh, salinité bi salinité bi day yokku muy gën a transformé wu en sel bu demee ba parcourir 45 cinq kilomètres yi ba mu jeex nag ci la ñu ci la ñuy mën a récolter euh, xorom soosu après nag defaraat yeneen conduit conduit yooyu war a jógee géej ndoxu géej googu moom la ñuy utiliser pour raxas xorom si donc am na technique techniques yu moderne yoo xam ne moom lañ koy raxasee de sorte que du du xorom si du sey bu paree nag ñu def mise en sac bi et puis transporter ko fële parce que dañuy am na projet bi ñaari projet la en tant que tel donc am na fi ñuy def exploitation sel bi xorom si am na aussi beneen projet boo xam ne port la donc dañuy defar port bu mag port boobu fa la bateau yi di accosté et puis jël xorom si yóbbu ko à l'export voilà donc ñaari production ñoo production am amna production bi nga xamné moy production usine bi du production wu 1 euh, million de tonnes par an la capacité usine bi mais parallèlement il y a une production traditionnelle Les euh, femmes sont nga xamné ñom ñoy liggéey ci filière sel bi donc recensé nañ déjà déjà 500 femmes yu adhéré y a aussi 300 femmes qui xamné bon recensé nañ leen muy quasiment 800 femmes production est ñu à 15 000 tonnes. par at. donc boo ko quasiment 1,5% production usine donc lu tuuti la lu la voilà. Euh, ci euh, euh, comment dire ci organisation projet bi ñu fas organiser def comité de gestion comité de gestion boobu moom permettre le lu femmes produire ñu jaay ko hmm. usine bi mais au préalable dañ leen di defal benn formation parce que technique yi ñuy utiliser fini euh, pour les techniques traditionnelles pour sel dafa dess donc sel bi dafay xorom ci dafa du du set nonu du du mel en tout cas niko usine bi bëggee hmm. donc au préalable ñu former leen bu leen defalé formation ba ba pare donc lepp lu ñu produire ci xorom dañ koy jënd et jënd ko prix boo xam ne comité de gestion bi ak promoteur bi ñoom ñooy toog fixer prix boo xam ne prix bu jaadu la prix boo xam ne au fur et à mesure dañ koy actualiser donc noonu lay demee. que may leeralaat ne amul compétition lépp luñ fi produire c'est destiné à l'export. donc du pour euh, yàqal femmes yi seen production et également techniques yi ñuy utiliser ay techniques yu moderne la ñëwul pour yàq agriculture bi ñëwul pour yàq navigabilité bi ñëwul pour yàq euh, élevage bi et au contraire digue yi ñuy préparer parce que déjà dana am digue bu mag digue anti-sel digue boobu moom mooy permettre limiter salinité bi jëm côté kii bi côté côté bi ñuy bay donc dig anti-sel boobu yoon lay nekk donc yoon boobu engin d'exploitation yi ci la ñuy jaar mais c'est une voie aussi d'accès qui est ouverte au public maanaam charité yi ak ñi nga xam ne ñooy déplacé wu diggante Palmarin jëm Ndangaan wala jëm Samba mën nañu emprunter yoon boobu wala ñi dem ci àll bi côté Fossémou les éco guide écotouristes yi mun nañu emprunter yoon boobu pour seen déplacement donc site bi kenn tëju ko également euh, la partie partie bi nga xam ne mooy euh, c'est c'est bâti surface bi bëriwul bëriwul en fait surface usine bi bëriwul et technique yu moderne la en plus soxlawul réseau électrique Senelec donc le solaire lay doxee donc euh, pour xamal leen que ne usine bi ñewul pour yàq environnement bi voilà da kay te et puis promoteur bi du premier du première usine donc amna une usine yu mel noonu yo xamné même technique yi lay utiliser euh, ñu wara def aussi un benchmarking donc dina am une délégation bo xamné moy mooy Palmarin ak benen délégation bu la parce que comme intercommunal pour dem endroits, visiter le site vous xamné même technique yi lay utiliser et une usine le fof comme ça nous luñ fa gis ñu mëna rapporter ko population nous ñu xam que naxuñ niñ ko expliquer ci business plan bi même technique yi lañ utilisée utiliser fini Palmarin ak Fimela. surface su Palmarin bo xolé Palmarin lepp toute la commune euh, environ 2500, 500 hectares Donc, donc mu une euh, euh, réserve communautaire. et sommes aussi dans une zone qui est qui air marine protégée mmh promoteur bi dafa wax li bëgg mais visite étudier la faisabilité parce que 5000 hectares couvrir partie terres cultivables donc ñu war ñu war couvrir partie de pâturage am nay bois sacré tout ça là génne nañ ko motax ci sama introduction ma xamal leen que né projet bi laalewul dara ak agriculture ak mbay ak navigabilité lolo tax tay c'est normal que promoteur bi buy def prospection mo ne li la soxla wax bëgg-bëggam mais buñ buñ défé visite sur le terrain mo nañ ko né dindi li génne li ainsi de suite donc lolo jarul nit ñi di ci agité wu te jaru ko c'est pas la peine voilà donc je pense que euh, commission domaniale bi mu ngi def liggéey bu am solo côté boobu pour li gën a liggéeyaat li nga xam ne mooy délimitation euh, projet bi euh, en tout cas xool li nga xam ne moom mooy mën a nekk ak li mënul nekk tout en sauvegardant les intérêts de Palmarin et tout en sauvegardant l'environnement. Voilà. Mm-hmm. C'est normal nag mu am ñu d'accordul parce que comprendre ñu. Mm-hmm. voilà chef de village bu d'accordul ci projet bi dama jàpp ne comprendrewul te def nañ ñaari def nañ ñaari euh, audience publique ci audience publique yooyu on avait réuni des chefs de village am na ñu ñëwoon am na ñu absenté mm-hmm. mais je pense que ñi si d'accordu loon ñëpp jot nañ euh, jël information et au finis joxe nañ seen joxe nañ seen avis que d'accord nañ ci projet bi. je pense que tey dafa am politicien yu nekk ci ginnaaw parce que li may leeral mooy que amagul benn décision bu ñu jël ci projet boobu. Mm-hmm. dañoo toll ci phase sensibilisation. Mm-hmm. mooy que promoteur bi ñëw na wax nañu bëgg-bëggam wan ñu projet bi wan ñu business plan bi donc suñu premier rôle mooy concerté wu en tant que en en tant que euh, conseiller euh, et puis dem ci population yi xamal leen que ne tel projet ñëw na ni la tëddee donc ci phase boobu lañ toll mais superficie superficie bu toll noonu meeru Palmarin mënu ko délibéré meeru fimla mënu ko délibéré. Mm-hmm. donc suñu rôle mooy sensibiliser sensibiliser joxe avis mais aucunement maire Palmarin wala wala maire fimla jaayul ay terrain mënuñu jaay terrain c'est pas possible. Mhm. lolu wax ju yàqu la. donc dañ nek juste ci phase sensibilisation. Mhm. buñu paré ci lolu joxé ben avis euh, promoteur bi kon def ses études d'impact environnemental et social. Mhm. bu amee quitus bien tant mieux donc on suppose que il va continuer maintenant buñu rombé étape bobu dinañ signer convention ñi signé signer convention yi teg un comité de gestion en place boo xam permettre ñu réglementer le luy emploi lepp luy euh, euh, organisation euh, comment dirais-je organisation qui bi revente qui bi production traditionnelle bi production traditionnelle boobu nga xamné 15000 15000 tonnes la hmm. mooy production famille hmm. yi si yan condition lañ koy jaayé si yan condition la actualiser prix hmm. donc étape bobu dal moy la prochaine projet bi amna 300 emplois directs 300 emplois directs même les chauffeurs ñiy dawal grue ni dawal engin dañ leen di tàggat former leen parce que quand même matériel bu cher la investissement bu cher la mënuñu permettre quand même di jox euh, euh, comment dirais-je euh, matériel boobu nous avons ne forom leen et c'est du contenu local donc ay domi Palmarin doomi Fimela films la ñuy tàggat moom la ñuy embaucher ci ci ci projet